jox la suñu réew mi dang ñuy nax yéen kaay bi dee bi naan at Amadou Ba am ko ci boppu réew mi lajj sur lajj lajj sur lajj Amadou lu mu làmb mu yàq mu dem seeti beneen xam nga tey jii diggante daaw bu ñu nee Sénégal tey la màngaan gi gën a bëri tey la faatu yi gën a bëri ci waax yi ndaw yi nag amatuñu yaakaar seen réew jéem a dem bitim réew yamale faatu wala egg loolee gënal leen toog ci misère gii nga xam ne mi ngi ci réew mi te ñu ne Amadou Ba mooy premier ministre premier ministre boobu ñu bëgg mu nekk suñu président yaa problème tribune ni ma xoolal mbënd mi ndakaaru moom bu wisee ma ni la koñ ñi taa am na ñoo xam ne ndoxu ay ati ati at mi ngi ci seen koñ suñ la yëkkatee war laa teg feneen France am na ñoo xam ni bañ leen yëkkatee ba tey ñu ngi ci location ay at canalisation yi ndoxum taw lu ko yóbbu géej ci ndakaaru jël joob nga xam ni mooy capital bi jafe-jafe la waa biir réew mi moom lu ñu war a wax Amadou amul saafara ci inondation bi ngeen di dañ koy jox réew mi nañ dem tribune yéene kaay naan maan boole koog réew moo xam ni cher location diggante daaw ren mar day taali looy lekk bu daan jër juróom léegi mi ngi ci ñaar fukk ndox ak courant daal di cher ba jéggi dayoo góorgóorlu fi mu nii dafa toog di xaar yàlla ñëw ci kawam ngeen ne Amadou Ba mi waxoon mu joyanti réew mi ba lii soppeeku muy gën di tar ngeen di jox réew mi aca turbine naan pareegu ma de ca gouvernement de combat ba Amadou Ba def calag ji las bajaan naan dañoo xamul ndaw yi rek gis nga ndawuk Sénégal fi mu ne benn objectif daal la ñu am fenn leen teg seen kët mooy fexe bañ a nga xam ne dañoo tële dootuñu leen jiiteeti El Hadji Talla journaliste naan président Macky Sall daal dafa mel ni ku dóor xeer ci oomam bu xale yi naan président Macky Sall du juum El Hadji Talla naan Sall moo juum kay choix Amadou bi baaxul mooy dëgg dafa def erreur moom président Macky Sall na ko nangu 24 heures yéen a kaay jox kàddu Bougane Gueye Dany mu naan président Macky Sall mooy ki juumul xam nga Sall jéemoon na fi laaj ñetteel bi mandat sénégalais yi naan ko wax ko seet yow président Macky Sall boo waxee troisième balaa nga yegg ñoŋ sa kaw mu arrière daw deuxième fi mu ne nii nag Amadou Ba la teg ngir mu dëggal dëgg dëgg ñetteel bi mandat moom président Macky Sall moom jiital gëm sa bopp naan leen waaye yomb na ngir xeex bennoo bokk yaakaar nañu def ñaar ba ñett say yoo xam ne yu am doole la te nag sunu yaakaar buñ ko wékk ci ñenn ci ëpp opposant yi de muy opposant yi nga xam ne lu ñu am ba fi mu ne nii système bee leen ko may ndax buñ demee ci ñaareelu wërngël bi deuxième tour bugaan gay dani na ñoo ñuy war kay ànd ak système ba géye nga naan leen ku leen joxul ndékki di leen dig añ bu leen ko gëm ñam leen ñu yees ñi ngeen seet ndax nag man sama bëgg-bëgg ci réew mi moom moo di teggil sénégalais yi bépp ak jafe-jafe ak naqar boo xam ne am nan ko fexe ba sénégalais yi tolloo doole seen bi réew kumba am nday ak kumba amul nday gi jeex ci réew mi numbelaan néew fi doole doon tooñ jeex ci réew mi sénégalais yi naan tex-tex may Dakar ak dëkk ci biir réew mi tolloo te génn nag feem daal la ñu àndal ci présidentielle bi bugaan naan fexe ba la ñuy woote wuyoo ko lépp lu ñu wax ñu mën caa teg baaraam suñu programme bii la ñu yéene suñu bopp ñu xam ne sénégalais yi ñoom lañ koy yéene suñu yéene du lenn lu dul dekkalaat yaakaar ci réewum Sénégal dekkalaat it yaakaar ci sénégalais yi waaye tam taxawal ak politique économique boo xam ne du doon ay diggee du doon ay naxee mbaay lu ñuy gis nii la janoog moom nii jaxaran leen fa yéene naan man en tout cas tasaaroo ga moom jëm nañ ko éviter Abdoulaye Daouda Diallo nee nee na day jàppale amadu Ba waaye wax ji wax ji mooy ndax yegg na ci xolam ndax Abdoulaye wax na ba jeexal te tuddul benn yoon turub Amadou Ba le point naan coow li coow li mooy dikkaatug Abdoulaye Daouda Diallo bii président Macky Sall moo ko waral ndax nag moo ko woo fexe ba mbir mi am loo ci mën ci déggit Abdoulaye Daouda Diallo nekkub responsable boo xam ne nangu nag kilifaam yilif ko Omar Sané directeur bu modernisation ak équipement rural di responsable APR ci turbine yéen a kaay naan coalition bu samp seen yaakaar ci Amadou Ba di candidat boo xam ne am na expérience te mën na leen ci génn ci yile élection moom directeur de l' agriculture ne coow li coow li mooy responsable yi defu say fexe ba ndam li des Benno Bokk Yaakaar te mooy jàppale Amadou Ba critique yéen kaay naan maan jiital conseil départemental bu Tambacounda moom Mamadou Kassé nee na ndamuk Benno Bokk Yaakaar daal booloo dong moonu ko mën a may xam ngeen élection législative jaar na fi xiiroo géeg ŋaayoo gi am ci biir Benno Bokk Yaakaar loolee nag taxoon nañu ñàkk gox goxaan yu bëri te bu ñu boolewul suñu doole mën nañoo dal ci présidentielle yi moom Moussa Sow njiital Sococel ci le point actu naan ndegam Abdoulaye Daouda Diallo moo xool li ko neex ak lu ko naqari ba bàyyi lépp lu mu jàppoon ànd président Macky Sall ci dogalam ñun ci boppam nañu boole suñu doole fas yéene jàppale président Macky Sall ci dogalam Aly Ngouille Ndiaye ak Boun Abdallah Dionne Moussa naan am na loo xam ne buñ ko defee day war président Macky Sall la du leneen tribune yéene kaay naan maan waxtu wi day waxtu ku ne xool fi nga féetee daal di fay taxaw la moom maire bu Malicounda Maguette Sène seen ngay xam le ni ma nga ànd ak président Macky Sall ci dogalam te fas yéene campagnal Amadou Ba ba mu jël ndam li ci premier tour Maguette Sène naan ca Malicounda ñaar fukk ak ñaar ci dëkk-dëkkaan yi nekk ci commune bi daañu ko wër fexe ba ñaar fukki fan ak juróom ci weeru février bii ñu ne Amadou Ba moo am ndam ndax nag Malicounda mooy ñaareelu commune bu ëpp ñu fay yeewoo ci biir ville bu Mbour Maguette naan dinaa fexe ba askan woowee jox gëdd waaye tam woteel candidat président Macky Sall bii di Amadou Ba l'observateur naan li ngeen war a laaj kay mooy président Macky Sall lu muy ruumandaat ndax ci ayu bés bee ñu génn fexe na moom président Macky Sall ba giseeg maam booy jaaw laaj sampute ci réewum Sénégal laas naan man Serigne Moustapha Sy waa PUR daal dinañu yennu candidature am l'évidence yéene kaay naan man Serigne Mbuub tamit candidat la ci élection présidentielle bi moom Serigne Mbuub xalif général bu Medina Baye defal ko cay ñaan lii ko quotidien naan man Abdoulaye Sylla bu Ecotra it candidat la woote si ses askan wi dem wuy ko ndakaaru ci boppam jël combat Abdoulaye Sylla bi daal di koy def yosam yéene kaay bi naan maan yàggul dara moom Abdoulaye Sylla day dina génn wax ak askan wi janoog ñoom wax ak ñoom ci candidature am bii laata sargal ay ndaw ak i soxna yu nekk ci ndakaaru daal di gën a dëggal candidature bu Abdoulaye Sylla bi réew mi ko di naan man Abdourahmane Diouf it candidat la ma nga naan pare naa ci bépp fànn ngir bokk ci élection a kaay jox kàddu Seydi Gassama directeur bu a kaay mayor solution bi tribune yéen a kaay naan leen allons rek politique daal nin ko jàppee fi ne ci réewum Sénégal doy na